أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci surat ala imran tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñuy jël aaya 59 60 61 62 63 mu nekk juróomi aaya yu ñu sunu boroom subhanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir aaya yi nekk sunu kanam dañul di saxal ubudiyatu isa wa risalatihi aaya yaa ngi saxal nekkug jaam isa yàlla subhanahu wa taala dañul di ñu wax ci aay yi nekk sunu kanam ne isa jaam la ab yonent la bu yàlla tànn subhanahu wa taala sunu boroom tànn ko ginnaaw bu mu nekkee jaamam yónni ko ci jaami yàlla yi waaye aaya yi dañoo taxaw temm di dàq rububiyatihi ne moom yàlla la ne moom moo moom wala moom yàlla la jëlee nañ ci délégation nasaraan boobu ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ko kullu aadamin lahu abun fama sa'anu isa la abun lahu fa anzala allahu taala ala rasulihi hadihi l aya kon aaya bi li tax mu wàcc mooy délégation boobu dañoo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ko mbindeef mu mën a doon doomu aadama boo gis am na baay waa isa moom luy mbiram moom de amul baay kon ñoom seen wax jooju am na lu làqu ci ginnaaw lu nu bëgg a wax yàlla subhanahu wa taala daa di wàcc aaya bi nekk sunu kanam bokk na ci li ñuy jëlee ci aaya yi nekk sunu kanam mooy wilaayatullahi taala li rasulihi yàlla subhanahu wa taala far ak allié bi mu def alliance ak yonentam bi te mooy Isa yàlla jubal na ko ci yoonu dëgg yoon wi nga xam ne dafa freiné jeexal lépp loo xam ne day indi werante ak coow ci Isa yàlla la wala yaayam yàlla la wala moom yàlla la kon ay dafa freiné loolu lépp ne Isa du yàlla yaayam du yàlla moom isa jaamu yàlla la yàlla ko tànn yonent yàlla la ay dañoo taxaw ci freiné loolu jeexal bépp dàggasante bu dugg diggante jaami yàlla yi ak isa alayhi salaam yàlla xamal jaam ñi ne leen isa du yàlla yaayam du yàlla yàlla mooy yàlla isa jaam la yonent la bu yàlla tànn yónni ko ci jaam ñi kon noonu la ko nit ñi war a xamee waaye jàpp ne isa yàlla la loolu réer weesuwul loolu njuumte weesuwul loolu beneen aaya yaa ngi jàngal taqriru uruhiyatullahi taala duna siwaahu ne yàlla rek mooy yàlla leneen lu dul yàlla du yàlla yàlla di dajji di yàq woote gi nga xam ne nasaraan yaa ngi koy woote fii ci isaa yàlla la yàlla da koo weddi ba mu set wicc kon du jaadu ab jullit waxuma la muy dëggal wala muy wala muy déngi déngi sax di am sikki sàkk ci isa alayhi salaam ginnaaw ba ci yàlla waxee ba pare rawatina nag bu yàlla weddee li jaam ñi wax ne lii ma wax man yàlla mooy dëgg nga nekk jullit yow li yàlla wax ngay àndal ñeenteel mooy tahdidullahi taala li ahli lfasaadi fi l ard ñépp ñi yàq suuf yàlla tëkku na leen wa hum alladina yaamaluuna bi sirki wal maasi te mooy ñi nga xam ne ay mooy yàlla la ñuy def ci kaw suuf wala bokkaale wala yeneen pas-pas wala di gëmloo nit ñi yeneen lu bokkul ak li yàlla indi ñépp ñi am pas-pas boobu nañu yëg ne yàlla tëkku na leen te ku yàlla tëkku moom ay dumaam rek mooy tegu ci sa kaw kon mbokk jullit yi lii moom mooy ay yi nga xam ne moom la ñuy jël tey ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ñu ñaan bur yàlla subhaanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين يقول المولى تبارك وتعالى إن مثل عيسى برم بنينا مثال سفكنتني مثال عيسى مثال الصفة المستغربة البديع سنكو جوخي bu ñuy jëlee ñaari mbir di leen misaal dañuy bokk melokaan bu yéeme bu kawe bu doy waar ñoom ñaar ñu gam-gamle leen daal leen di joxe misaal waaye ñaari mbir bu ñu nuroowul bokkuñu yan waru cee joxe misaal waaye ñaari mbir bu ñu nuroowee dend yéeme dañ ciy joxe misaal te mbirum Isa ak Adama dañoo dend nuroo moo tax yàlla joxe ci misaal est-ce que góor ak jigéen kuy joxe misaal da nga joxe góor ak jigéen nga ni Ibrahima de mook ndey faatu loolu xam nga dafa doy waar bokkul moo tax chaque jour bu ñuy joxe misaal moo tax mu ne la asifa al mustaghriba dafa war a nekk melokaan boo xam ne dafa yéeme moo tax ñu joxe ci misaal pour nit ñi bàyyi xel ci liñ leen di wax misaal yu bëri nag yoo xam ne yàlla mu ñu koy wax wala yonent bi duñ ko wax wala borom xam-xam yi duñ ñu ko indil li muy jur mooy yow mi ñuy waxal pour xëcc sa xel mu jege si nga dégg liñ lay wax ñu indil la misaal moo tax sunu borom subhanahu wa taala mu ne inna mathala isa wóor na ne misaalu isa المتماثل الحاصل بين آدم وعيسى عليهما السلام في شيء واحد mbokk jullit yi lan mooy misaal bu ñu yàlla di xëcc di ñu ko won diggante isa ak aadama misaal bi mooy lan ci benn mbir kese la benn mbir kese moo tax yàlla xëcc isa di ko dendaleek aadama ci misaal benn mbir la kan moo xam mbir boobu benn ñaar ana sama kado yi ñetti nit yëkkati nañ seen law ñeenti nit jàkka jëpp na ñeent de juróom ban mbir la amul baab Adama dafa am baab Isa dafa am baab moo tax gis nga misaal day nuru est-ce que dañu fekk ko am baab ak ko amul baab ñu leen di dellale déedéet ñoom ñaar bokkuñ Isa amul papa Adama amul papa moo tax yàlla mu ne fii shay'in wahid wa huwa anna kullan minhuma xuliqa min gayri abin ñoom ñaar ñëpp yàlla da leen a bind te amuñu bàyyi wa xalaqa wa xuliqa bi kalimati kun fa wa hiya benn baat la leen yàlla bindee mooy lan kun nekkal rek ñu daal di nekk kon yàlla nee na inna mathala isa naka misaalu isa inda allahi ci yàlla mu ne ka mathali aadam mu ngi mel ni aadama rek ndeysaan moo tax gaa yi naan di yéemu ci isa mu ne inna allazina yataajabuna fi amri isa limaada la yataajabuna fi amri adam ñii misaal di di waaru ci mbirum isa mu yéem leen jaaxal leen bañ ko bëgg ko yëkkati place yu yàlla waaw ñoom kay dëgg dëgg dëgg dëgg li leen waroon gën a jaaxal mooy adam adama moo war a gën a yéeme di ak isa bu ñu tegoon isa ak adama ñu ne ñaar ñi kan moo gën a doy waar kuñ war a wax ah lan moo tax aadama moo gën a doy waar aadama amul fu mu jóge ci ban bi la yàlla tibb ban ban bu jaxasoo fii tiinin laazib fii hama im masnuun ci ban bu xeeñ bu jaxasoo bu xonq ak bu ñuul tooy xepp la yàlla jël ci loxoom yu sell yu barkeel yooyu tabax ko guddaayu set xasab xam ngeen xasab mooy la zira nii ci ni ngeen mën a déggee sept mètres guddaay yaatuwaay ñaata mètre guddaay soixante soixante mètres sept mètres yaatuwaay yàllaay ngand kooku ci ban lal kooku menuisier bu ko bëgg a defal lal cordonnier bu ko bëgg a defal daal téer bu ko bëgg a ñëwal mbubb ah adama du woon ku ndaw de kon kon adama ponkal la woon 60 mètres guddaay guddaay yaatuwaay 7 mètres adama tëdd yàlla jël ru dugal ci mu nekk nit isa nag moom dafa am yaay kee nag moom amul papa amul yaay kii am na yaay kon kan moo gën a doy waar lu gën a yéeme ci loolu aadama moomu yàlla bi mu ko bindee ba pare bàyyi ko muy nelaw yàlla daal di ubbi faaru gauche bi daal ciy génne xawaabu kooku tamit gën a jaaxal ñëpp daal di génne ci awa ci faaru góosu aadama lu tax jigéen kenn génnewu ko ci bopp góor kon def koy supérieur day nekk ci kawam toog ci kaw bopp bi lu tax kenn génnewu ko ci tànk góor kon day jaamu góor góor daf koy def jaam fan lañ ko génne ci faar faar fan la nekk ci wet dañu bëgg sa soxna nekk sa wet moo tax yàlla génne ko sa wet pour mu jege la nekk sa wet nekk yërmande pour yow nekk ku lay jàppale nekk ku lay dimbali moo tax yàlla teg ko sa wet fi mu nekk nii loo am lu la neex foo koy teg te indi mbir yi sama wet yow sa dàll yi sax da nga naan sama wet gis nga de sa wet est-ce que da nga ne dàll yi teg ko sama kaw bopp ah bagage yi teg ko sama kaw wala indi ko sama wet pour mu nekk sa wet moo tax yàlla def jigéen sa wet kon waroo ko mbugal waroo ko tuutil waroo ko doyadi waroo ko manqueel parce que sawet lan la wax la war a nekk sawet moo la ñu génne ko sawet
xam lu mu woon woon faddal comme mbiru Isa ak Adama Hmm.
am yooyu même yooyu dañ dañ dañ see gisaat yoo xamante ni miracle yu garaaw la.
Mhm.
kon dafa woon benn bayal bu yaatu léegi bayal boobu ba mu tawee ba taw mu daal di doon dex léegi dex boobu dem ba mu yàgg mu am jësit mais jësit boobu tamit dama ko laaj mais lii jësit bi kon kon amul papa amul yaay am tamit dem ba mu yàgg mu koy jël may xalaat ni jën yi tamit fan lañ jógee.
allahu akbar mbindeef yàlla sunu borom subhanahu wa taala euh, bu ko nit ñi gëmoon wala nit ñi yenn saa yi damay faral di leen wax ne benn benn dessinateur ñiy xool géej dem ba géej rek teg seeni peinture teg seeni tableau di xool diggante asamaan ak suuf ak géej gi wala ñu jàkkaarloog benn dex xool garab yi xool dex gi wala ñu ñëw xool dara rek dessiner dessiner tableau bi ba tableau bi rafet ñu dem exposé ko nga gis borom alal yi ñëw ñu ne ñu ngi jaay tableau bi ñu ne yow tableau bi lu mu la jaral kii ne 1 million beneen waaye ne 2 millions keneen ne 3 millions keneen ne 4 millions kii ne 5 bañ dem ba 10 millions nga gis ku jënd tableau bi 10 millions gaa yëpp tàccu mu jël tableau bi def ci saalam tableau boobu ki ko xool ba dessiné ko fan la ko xool ci nature bi ana nature bi nit ñëpp xool nañ tableau bi waaru te nature baa ngi nii ñu jàkkaaroo guddeeg bëccëg kenn waaruwul te tableau baa ngi nii di ñu waar guddeeg bëccëg ku yoo sa tableau bi rafet na te waa ji fii la ko jëlee te loolu yaa ngi nii di ko gis waaruwuloo tableau bi jaral na la 10 millions xoola waajooju affaire boobu muy romb jaralu ko ñaar dërëm te mu ngi nii muy romb mais bi keneen ñëw dessiné ko jël def na ci 10 millions dégg nga loolu mooy suñu problème te xoolal ay chaque jour ay inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi lleyli wan nahaar la ayatin wa fi samai yàlla nee na wa fi anfusikum afala chaque jour yàlla nee na waaye yéen wa min ayati an xalaqa lakum sa kiimtaan yi bu ngeen xoolee li ma leen di bindal xool leen asamaan afala xoolal gëléem rek afala yanzuruuna ila al ibili kayfa xuliqat xool leen gëléem ni ko yàlla bindee borom xam-xam yi ne la gëléem moom lañ tuddee safinatu sahra moom mooy bateau de terre gëléem day toog weer du naan weer du naan gëléem du lap ci suuf ah kiimtaan yi nekk ci gëléem boos bi nopp yi la hawla wala quwwata gëléem de li ci nekk wala yàlla mu ne xool leen gëléem léegi nit ñi duñ def yooyu te benn waaye bu ñëwoon léegi dessiné gëléem rek jaar lay jaay photo bi deux dix millions nga jënd ko te ndey mbi gaa ngi nii bu nee dañ la koy jaay cent mille nga bañ te buñ ko dessiné léegi nga jënd ko dix millions def ko sa saal ku ñëw et puis da nga koy def foo xam ne nit ñi fa la ñuy daje ku ñëw rek ti- day tiit kon nit ñi yàlla woo na leen ba sonn waaye nit ñi ñoo dul gis nit ñi ñoo dul dégg amul ci kaw suuf mbindeef yi ngay gis loolu yàlla moo leen bind yàlla nee na rab yi ngeen di gis mbindeef yi umamun amsaalukum ay ay mbindeef lañ comme yéen yàlla moo leen bind indi leen fi kon sunu borom subhanahu wa taala ne misaalu isa inda allah ka mathali adam xalaqahu min turab yàlla bind na aadama ci suuf si xon naa leen ko sànq yàlla nga bind aadama bisu àjjuma bisu àjjuma la ko yàlla bind àjjuma ci ngoon la yàlla bind aadama ci biir aljanna yàlla mu ngi ko bindee ban bu ànd ak suuf bu ànd ak ndox bu am ay couleur la yàlla jël tabax aadama bàyyi ko ba mu fendi yàlla daal ci dugal loxoom ci bisu àjjuma boobu ci bisu àjjuma boobu ci la ko yàlla génn biir aljanna ci la ko yàlla dugal aljanna ci la ko yàlla génn ci benn bis boobu nit ñi dinañ ne waaw li doy na waar de déedéet doy waar de inna yawman inda rabbika ka alf sanati mimma ta'uddun ñun sunu benn bis sunu benn bis benn bisu yàlla mooy sunuy junni inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun sunu junni at mooy benn fan ci yàlla moo tax àdduna ku fi gudd fan ci yàlla amoo fi sax ay minute loolu moo tax ngeen dégg alxuraan allaaxira bu nit ñi nekk ci bàmmeel yi bu ñu leen yeewee ne leen jóg leen di leen laaj ñaata at ngeen am ci bàmmeel da ngay gis wax ne tey depuis par exemple ay Lat Joor ah ay aadama ñooñu ku fekkoon bàmmeel tey nga ne ko ñaata at nga fi def fekk yàlla ne benn fan la fa am da ngay gis ñooñu naan in labisna illa yawman benn jour laa fi am ñeneen ñi nga xam ne moom ay juróom-ñaar fukki at ñoom naan lañ naan lam yalbasu illa ashiyatan man nag ngeen ah damaa xëy àdduna rek benn suba rek dee nga dégg ki ne ngi naan ngoon laa fa am yemuñ ci de dañ naan fas alil aadin laaj leen mathématicien yi moo tax yonent bi ne àdduna amul valeur àdduna yàggul ndax junni sunu junni at mooy benn fan ci yàlla est-ce que nit dina am junni at ci àdduna léegi bu fekkee sunu junni at mooy benn fan ci yàlla kon àddina ki fi am téeméeri at ña- lan la am ci yàlla te minimum nit ñi léegi ay téeméeri at la ñuy am kon àdduna est-ce que sax na ci yàlla benn fan loolu moo tax nit ñi ndeysaan àdduna boobu nag moo leen nax looloo tax yàlla ne ci bisu àjjuma boobu ci la yàlla dugal aadama biir aljanna ci la ko génne aljanna ci yàlla ci suuf la bind aadama kullukum min aadama wa aadama min yéen ñëpp ci suuf lañ leen binde aadama ñu ngi ko binde ci suuf bismillah waaw ni suuf la jógee yàlla ne minha xalaqnaakum wa fiha wa minha comme doomu aadama ci suuf la ko yàlla bind moo tax ci suuf rek nga mën a dund doomu aadama dem na ba kaw asamaan waaye doomu aadama dem na ba biir géej sooy dem biir géej loo yóbbaale pour nga nekk fa oxygène amul biir ak géej sooy dem kaw asamaan loo yóbbaale oxygène parce que mën a dund xoolal fii la yàlla defar oxygène fii la la yàlla binde yàlla nee na fii ngay dund fii ngay dee soo dee ma dugalaat la ci biir suuf yowmal qiyaam booy dekki ma génne laat la ci biir suuf ndeysaan ñëw na ci benn asar yàlla ne ibnu aadam yow doomu aadama xalaqtu min aturaab suuf laa la binde wa utta min aturaab suuf ngay delluwaat xarajta min aturaab bila zamb wa utta min aturaab wa kulluka zunub ngay génn ci kaw suuf amoo benn bàkkaar tey danaa la delloo ci biir suuf yaa ngi fees dell ak i bàkkaar doomu aadama suuf la te xam nga ñun dañu avancé suñu jigéen ñi kuy dox sax ñaari musuwaar ngay yor benn bi pour am gi la ak yaram bi beneen bi pour tànk yi léeg-léeg nga merde merde mbedd mi dafa bari suuf la merde seen mbedd mi banlieue fii seen mbedd mi dafa bari suuf quoi di fomp bëggoo suuf laal la xoolal doomu aadama ëllëg jafe-jafe lan lay wax yàlla yaa lay tani kuntu turaab ak a neexoon tey ma nekk suuf yaa laytani kuntu turaaba mu tibb ci suuf si naan nii yaa laytani kuntu turaab xam ngeen lu tax doomu aadama ëllëg mu romb lépp ne ak a neexoon ma nekk suuf parce que allah subhanahu wa taala bu dajalee doomu aadama yi da leen di teg côté jinne yi côté jël rabu àll yi na aca rabu àll yi fayonte leen bu amoon doole am béjjën mbëkk sa morom wala nga gaañ ko nga fay barabu àll yëpp fayonte yàlla dafa maam mooy al aadil mooy turam boobu yi sax dañuy fay bu rab àll yi fayoo ba jeex ba ñu tooñoon àll yi tooñoon yëpp yi ñu tooñoon fayu yàlla ne leen kuunu turaaban nekk leen suuf nekk doomu aadama bu gisee loolu nag ci lay toog ci suuf nag à genoux tibb suuf ak ñaari loxoom di ko ngëpp di ko sànni naan yàlla suuf tey yàlla bañ maa fay tey kon yàlla bañ ma misaal kon yàllaa ngi bind aadama xalaqahu min turaab ci suuf summa topp qaala lahu yàlla wax na ko kun fa yakun nekkal nit rek mu nekk nit suñ borom du morom de borom la waaw moom bu bëggee defar dara du dem normalement dafa waroon dem uti deret ay siti ay yax ay yàpp uti boor ci ndox di ñaw di taqale di xotti ah wala déedéet yàlla suuf la jël malaaka la yónni malaaka indil ko suuf mu tëral ko defar ko ci benn xob defar ci benn xob subhanahu wa taala ba mu mel melokaanu nit mu teg ci baaraam ko yóbbu turaab summa qaala lahu kun fa yakun nag yow jullit bi dégg bu fekkee dëgg rek nga bëgg yow étudiant bi nekk université Cheikh Anta Diop ñu naan la nit golo la wala du loolu ngeen jàng seen théorie yi ana fi étudiant yi ñan ñoo def ñan ñoo nekk fii si amul fi étudiant ah lu ngeen jàng nit ci goro la ngeen ah ñu nit goro la du loolu la ngeen jàng wala du loolu ñu ne premiers hommes yi lan lañu woon ay golo adduna bi mooy ñëw ñu ñu wane sax ne ñëw yàlla de wane ay photo nag wane ay photo ñu ne premier temps bi nii la woon temps nii nii nii nii di wane di wane di wane di wane boo wane fu mu siggee ñu wane fu geen gi daggee ñu wane fu kawar gi ruusee muy Darwin Darwin nee na ñun ñi njëkk ñi ay golo lañu woon ñun ñi ay golo lañu yéen ah man de duma golo man yàlla man koo ji ci aadama laa bàyyeekoo yéen nag nangoo ngeen jël ci golo yi kon yàlla subhaanahu wa taala moo ñu won théorie doomu aadama fu mu jógee génnoon ci golo kon yàgg yàgg yàgg ak lu mu yàgg yàgg di ngeen gis ay nit di jur ay golo waaye xoolal nit nit la koy jur golo bu jur nit ginaar ginaar rek lay jur xar xar rek lay jur kon nit yàlla subhanahu wa taala moo ko defar ci loxoom ne ko kun fa yakun mu daal nekk nit yàlla génn ci nit kooku yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa wala loolu dalaay waaw léegi nan lañu yàlla doodee lii ba pare ñun ñu bëgg a gëm théorie Darwin ñu bàyyi bu yàlla moo tax gis nga ñi nga xam ne seen ay kaar yi université buntu université di toj kaar yi di toj fóon yi parce que golo day yàq rek parce que ñoom dañoo gëm ne seen i maam ay golo lañ sëtu golo yi si ba ñu mer dañuy koj oto yi koj kaar yi ñu leen jàngale seen maam golo la foofu la ñuy ñëw toog ñii ci kaw garab yi sànnante xeer yi toj yàq rëbb ji lépp parce que dañu leen gëmloon ni seen maam golo la léegi nag comme loolu la foog ñu wane jikko golo yi aleykum salaam walla foog góor ñi ñu jege si nii ñu bàyyi jigéen ñi góor ñi mën nañu avancé ci kanam yéen góor ñoo ñu nekk ci ginnaaw yéen góor ñoo ñu ci ginnaaw nit nit dafa war a gëm li yàlla wax li yàlla wax ci yow mooy lan mooy yow maa la bind ci nit laa la jële àdduna du yàgg ba nga nekk golo golo àdduna du yàgg ba golo nekk nit boo weddi woon léegi demal ci àll bi nga jël golo ngay dugg sa kër nga koy yar da ngay sonn rek waaye golo golo la munoo fexe ba mu nekk nit golo rek lay nekk lu loo ko yar lu mu civilisé si solal ko yëre dee ko sang takkal ko karawaat jox ko portable defal ko lépp bis boo ko yóbbee kër jàmbur di nga réccu ndax dinañ xam ne àndoog nit golo nga àndal golo la kon nit munta nekk golo golo du nekk nit yàlla nee na pour ngeen xam ne théorie bi ma leen wax moo am ngeen bañ a gëm bu darwin alxaqu dëgg gi min rabbika mooy li bàyyeekoo ci sa borom lim la wax ne nit ci suuf la ko yàlla bindee muy aadam falaa takuunanna bul bokk mukk minal mumtarina ci ñi sikki sàkka nekk jullit nga dem ba foofu yegg rek ñu ne la samaam golo la nga nga ñëw di ko wax nit ñi waaw di ko théorie di sikki sàkka li la yàlla wax falaa takuunanna bul bokk mukk minal mumtarina ci ñi dengi dengi di sikki sàkka naan lan nit golo la sama maam golo la ashakina al imtira sikki sàkk mooy dengi dengi yàlla subhanahu wa taala ku toll ne yàlla warulaa wax ba pare ngay sikki sàkk di dengi dengi di tërëf tërëfi yàlla nee na li ma la wax mooy dëgg alxaqu min rabbik man yàlla subhanahu wa taala man mi bind maa la wax maa la informé man mi nekk sa borom maa la wax kon yow lu la war mooy dëggal li la sa borom wax alxaqu min rabbik fala takunan léegi nag bis boo demee jàngi bis boo dematee université boo dematee philosophe yooyu nga xam ne ñoom dañoo gëm ne seen maam golo la ñu bëgg a dàgga santeeg yow faman haajaka fiihi képp ku weranteeg yow aaya bi li tax mu wàcc nasaraan yooyu dëkk najran dañoo wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ji ne ko isa doomu yàlla la yonent bi ne leen isa du yàlla du doomu yàlla du jaamu yàlla la ñoom ñaar groupe yi ñu werante ci léegi nag lan mooy indi preuve ne isa du yàlla isa du doomu yàlla mooy yàlla moo leen di atte ñoom xam nañ léegi dañuy gëbbandi da ngeen di ñëw benn jour yéen ñu weddi loolu yëpp yéen ñu gëm ne seen maam golo la wala Isa yàlla la wala wala yéen ñëpp ngeen di ñëw man yonent bi alayhi salaatu salaam ma ñëw indi sama waa kër groupe gi taxaw nii groupe gi taxaw nii ñu rëbbante yéen ngeen wax ñaanal ma yàlla lu bon bu fekkee yéen a wax dëgg man yonent bi naa al ko su ngeen paree man tamit ma yëkkati yàlla samay loxo daal di ñaan mooy rëbbante yàlla ne ko faman haajaka fiihi képp ku discuter ak yow werante jaadalaka bil xujaj weranteeg yow di dengi dengi naan yàlla subhanahu wa taala ah moom day moo def Isa nekk yàlla yaayam déedéet fa man haajaka fiihi képp ku weranteeg yow ci loolu min baadi ginnaaw maa jaaka la la dikkal min al ilmi ci xam-xam xam-xam bi la yàlla jox dëgg gi la yàlla indil képp ku ci weranteeg yow bul sonn faqul na nga leen wax yow muhammad taalaw ñëw leen nadu ñu woo ab naa ana sunuy doom man yonente bi ma woo samay doom yéen ngeen woo ab naa akum seen doom seeni doom wa nisaa ana ma indi samay soxna wa nisaa akum ngeen indi seeni soxna wa anfusana ma indi sama bopp wa anfusakum ngeen indi seen bopp moo tax gis ngeen aaya bi dafa bokk ci aaya yi fen loo chia yi fan la fan la leen yàlla fen loo fii chia yi ci aaya bi fan fan dañu ne waa kër yonent bi jigéen ñi bokkuñu ci aala bayt chia yi nee nañ soxna yonent bi bokkuñu ci aala bayt rasul ñoom Aïcha ak ñoom Hafsa bokkuñ ci aala bayti Useynu Asan la Fatima Roqaya ak Ali ah mës nga gis nit ki am jabar ba pare ñu ne sa jabar bokkul ci sa waa kër sa soxna fan la bokk aaya bi bi muy wax waa kër yonent bi est-ce que dugalul jigéen ñi nisa ana kon nisaa ur rasul min aala bayti rasul gis nga aaya farfarloo ak day tax yenn saa yi nga gëmm ba doo gis dëgg yàlla gi far farloo far baaxul yal nañ ci yàlla musal yonent bi yàlla moo ko wax li ne ko léegi ñoom bu ñu la weddee rek ni ñuy def mooy yow yonent bi da ngay ñëw ànd ak say doom ak say soxna ñoom yéeféer yi la weddi ñu ñëw ànd ak seeni doom seeni soxna mu nekk ñaari groupe ñoom ñu ñaan la yàlla bu ñu paree nga ñaan leen bi leen yonent bi waxee la ñu ne "Ii, bu leen dem de ku dem da ngay dee kii ku mu ñaan da ngay dee kon ñoom xam nañ dañuy fen parce que xam nañ ne ab yonent yàlla du delloo ñaanam ab yonent bis bu jàkkaarloo ak mbooloo yëkkati yàlla loxoom bu wàccee rek du baax bu leen sit bu leen ñaanee lu bon ba ñu xamee loolu ñu lànk bañ a dem parce que lii yonent bi moo leen ko samp moo leen lancé défi ne bu fekkente ne wóolu ngeen seen bopp acca taalaw ñëw leen nadu ngeen woo ab naa nadu ñu woo ab naa ana sunuy doom ma woo Hussein ak Hassan yéen wa ab naa akum ngeen woo seeni doom wa nisaa ana ma indi samay soxna ñoom Aïcha Hafsa ma indi ñooñu wa nisaakum yéen ngeen indi seeni soxna wa anfusana ma indi sama bopp man ma ñëw maak ali wa anfusakum yéen ngeen indi seen bopp léegi nag summa nabtahil ñu rëbbante waaw nalta an ay nal an alkaadiba minna ñu rëbb ñu ne yow yàlla ñaari mbooloo yii képp ku ci fen ci mbiru isa yàlla na nga ko alak ñu wax loolu ñi gëm ne isa yàlla la yaayam yàlla la yàlla nang leen alak ñi gëm ne isa jaamu yàlla la yonent yàlla la yàlla nang leen may ndam aca ñëw leen waaw gaa yi demuñu de dañoo daw ndax xam nañ ne bis bu ñu jàkkaarloog yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musiba dana leen dal moo tax nan lañ def dañoo deltu ginnaaw dañoo daw ndeysaan sunu borom subhanahu wa taala mu ne summa topp nabtahil ñu rëbbante fa najaal ñu def laanatallahi alkande yàlla alal kaasibiin yàlla na nekk ci fenkat yi képp kuy fenkat ñoo ngi ñaan yàlla ci ñaari mbooloo yi yàlla na rëbbam yàlla dal sa kaw bi aaye bi daanoo rek ñu daal di lànk demuñ lu tax demuñ ndax xam nañ ne bu nu ñaa jàkkaarloog yonent bi alkande daal di dal seen kaw ñu daal di lànk bañ a dem demuñ allahu akbar mbokk yi mu ne illa anna nasara arafu lxaq wa xaafu chrétiens yi xam nañ dëgg gi ñu ragal in laa anu halaku bu ñu rëbbantee alku fa harabu ñu daw minal mulaana ci rëbbante gi ñu taw ay kay demuñu ku dem dee de ku dem doo dellusi de wa daahum rasul ila lislaam fa abaw yonent bi woo leen ci lislaam ñu lànk waradu bil kufri ñu gërëm nekk ay yéeféer bil baqaayi alal kufr ne ñun de wax dëgg yàlla waaw woo woo nga ñu nekk ba li nga wax wax nga ko waaye nag ñun de wax dëgg yàlla duñ ñëw duñu rëbbantee yow waaye tamit tuubuñu ah nit bu xamee dëgg lu ko war boo xamee dëgg waaye xam nga lu tax yenn saa yi nit xam dëgg bàyyi ko mooy yàlla moo la baaxewul ne da ngeen defee ne Sénégal gi tey nit ñi xamuñu dëgg gi da ngeen yaakaar ne nit ñi xamuñu dëgg fan la nekk da ngeen yaakaar nit ñi xamuñu ne dëgg mooy alquran ak sunna xam nañ ko di jigéen ñi def yaramu neen ci mbedd yi est ce que ñoom xamu nañu ci léegi ci xamu nañu ci caaxaan lañ xamuñu ko wala xam nañ ko da ngay ko ne ah wax dëgg yàlla man kay xam naa ne li baaxul waaye nag man kay mees si xam naa ne baaxul waaye man kay xam naa ne xeesal baaxul waaye nag man kay xam naa ne li may def baaxul waaye nag waaye nag mooy waxi la man kay xam naa ne wax dëgg yàlla bañ a julli moom moom moom musiba la moom man kay xam naa ko waaye nag gis nga waaye nag ñëpp xam ne dëgg gi dëgg la waaye imaginer bu fekkee jullit yii ñoo xam dëgg bañ kon nasaraan yi lu ñuy def ah jullit yi nga dëkkal sa biir kër ñoo xam dëgg gi bañ ah man wax dëgg yàlla xam naa ne li nga nekk mooy dëgg mais ñaanal ma rek dégg nga nag ma ñaanal ah ñaanal ma pour ma mel ne yow waaw lan mooy ñaanal ma ñaan da laa mën a indi dëgg gi kay boo ko xamee da ngay bàyyi li nga nekk rek ñëw waaye na ngeen ma ñaanal ñaan gi daf laa mën a jëm lu xarta jël fa la nga nekk indi la ci dëgg bi mënul nekk ndeysaan fa ma baadal xaq daal illa dalal ginnaaw dëgg réer rek moo fi nekk moo tax boroom xam-xam yi di wax kun abdan lil xaqi wa abdal xaqi hurran nekkal jaamu dëgg jaamu dëgg ku am liberté la du jaam léeg-léeg nga bàyyi lislaam gis ngeen diine bi ku ko bàyyi rek jaamu leneen di nga jaamu nit wala nga jaamu bóote wala nga jaamu sa morom mbaa nga jaamu sa bakkan jàngeen alxuraan ne afara ayta man itaxasa ilahahu hawa kon sunu borom nee na nasaraan yi fii la ñu mujje lànk bañ a dem topp àdduna ak seeni intérêt bañ a gëm lislaam sunu borom ne inna haza naka lii la huwa moom alqasasul xaq mooy histoire bi ma lay nettali bu dëgg bu sax ci mbiru Isa ci mbiru Aadama bul ci sikki sàkka ñaari mbir a ngi ni yow jullit inna haada naka lii ma la wax ci téere bii ci aaya yi ci mbiru Isa ak mbiru Aadama ne Aadama bàyyeekul ci golo Isa du yàlla yaayam du yàlla Aadama yàllaan ko bind ci suuf na ko nekkal mu nekk Isa yàllaan ko génne ci yaayam Maryam ginnaaw ba mu yónnee jibril mu ëf baati mbubb yi mu daal di ëmb wa huwa anna allaha taala arsala jibril alayhi salaam fa nafaxa fi kummi dur'i maryam fa saarat an nafaxa fiha fa xamalat bi isa wa waladathu fi saatin min nahar wa takallama baada wadciha lahu yàlla yónni na isa ci benn waxtu jibril jibril ëf mbubu maryam ci baat ya mu ëmb ci benn waxtu mu am doom ci benn waxtu doom ja wax ci benn waxtu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kon mbir yi ñaari mbir yaa ngi nii yow moom bu la ci kenn téwari na nga yëg ni lii sa borom wax la mooy dëgg alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin képp ku ci weranteeg yow rek ne ko bismillah jàppal ma jàpp ñu daal di ñaan yàlla day bañ inna haza lii la huwa moom alqasasul xaq mooy histoire dëgg nettali dëgg bi ma lay nettali yow muhammad maa qasahu huwa alqasasul xaq assaabit alladi la shakka fii lii ma la wax ci téere bi mooy dëgg amul benn sikki sàkk bu ci nekk wa ma min ilahin amul benn buur bu nu war a jaamu jaamu gi nekk dëgg jaamu gi nekk njëriñ illa allah ku dul yàlla inna allaha yàlla la huwa moom al aziz mooy ki not ci nguuram alxakim mooy ki xereñ moom yàlla subhanahu wa taala mbokk yi wa ma min ilahin illa allah amul kenn kuy yàlla ku dul yàlla amul kenn kuy yàlla ku dul yàlla léeg-léeg benn waaye ne la yow yàlla nga yow yàlla nga nga ne ko déedéet mu ne ah kay yàlla nee na laa ilaha illa allah dara nekk fi lu dul yàlla kon dara nekk fi kon yow nekkoo fi ku fi nekk yàlla nga kon yow yàlla nga dégg nga théorie bi te loolu du laa ilaha illallah de maanaam firi bi ñu ko firi moo baaxul moo tax ñu nax la laa ilaha illallah tekkiwul dara amul lu dul yàlla déedéet laa ilaha illallah li muy tekki mooy kenn du yàlla ku dul yàlla yàlla waxal dara amul de dara am na kay man am naa yow am nga yaa ngi nii di gis li am yàlla dane kenn du yàlla ku dul man loolu lay tekki loolu la laa ilaha illallah di tekki tekkiwul dara amul lu dul dara am na asamaan amul suuf amul mais dañ lay bëgg a nax parce que ñu jàngul la ñu jàngul la ba pare yow it jàngoo ñu nax la dara amul lu dul yàlla kon yow yàlla nga yàlla nee na dara amul et puis bëri wax nag boo xam ne lay lay Sénégal ngay gis ku musul jàng dara ci alxuraan di waaraate ci diine Sénégal rek nga koy gis ah jàngul dara ci diine di waara di waaraate ci diine di théorie nag yenn saa yi ñu takkal ko rajo nan lañu yàlla jubal wa ma min ilahin illa allah amul kenn ku war a wootewu ne mooy yàlla ku dul yàlla yàlla rek mooy yàlla kenn du yàlla ku dul moom mu ne inna allaha la huwa inna allaha naka yàlla la huwa moom al aziz mooy ki not ci nguuram nguuram gi lu ko ci neex rek mooy am lépp lu ngeen gis nii muy am daf ko neex waaw al aziz mooy ki not ci nguuram gi kenn mënu cee def lu ko neexul alxakim mooy ki xereñ koo xam ne lu mu def noonu la fa in tawallaw lii lépp nag bu leeree nga wax leen ko mu leer nañ ñu lànk bañ a gëm na nga yëg ne fa inna allah yàlla ala ali alimun bil mufsidin yàlla xam ne yàqkat yi ñan ñooy yàqkat yi mooy ñi gëm ne darwin ñi gëm théorie darwin ne nit golo la ñan ñooy yàqkat yi mooy ñi gëm ne isaa yàlla la wala yaayam yàlla la yàlla yàlla la ñi ñëpp ay yàqkat lañ ñan ñooy yàqkat yi mooy ñi nga xam ne xam nañ ne yàlla rek mooy yàlla ñu lànk loolu bugg fee indi yeneen yàlla yu dul yàlla boo waxee lii lépp fa in tawallaw ñu wane ginnaaw théorie bi ni mu leeree nekk dëgg te yàlla ne ne inna haada la huwa alqasasul xaq lii mooy nettali dëgg gi nga wax lii lépp mu nekk dëgg ñu lànk na nga yëg ne fa inna allaha moom yàlla moom alimun ku xam la bil mufsidiina ci yàqkat yi mbokk yi bu ñu jàngee lii yàlla ne yàqkat yi xam naa leen te kenn ci ñun toog fii bokk ci yàqkat yi mu dégg li yàlla ne xam naa yàqkat yi nu ñu war a def hmm? ah loolu moo tax boroom xam-xam bi ne bu ngeen jàngee alxuraan na ngeen bàyyi xel aaya fu muy jeexee aaya bi fan la jeexee tey yàlla nee na xam naa yàqkat yi fa inna allaha alimun bil mufsidin yàqkat yëpp xam naa leen ku yàlla xam ne yow yàqkat nga foo jëm kon yàlla buñ bokk ci yàqkat yi ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu bokk ci defarkat yi ak ñiy jubal yàlla nañ yàlla may ñu jub tey jubal baax ti baaxal aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh